leçon numéro quinze masalikul jinaan wati soho sil juróom ñeenti fan ci weeru tëbëski woor ko am na ngëneel yu mag fu la man di fekk nag boo nekkee makka nag ca la bisu taxawaayu xarafa waaye boo nekkul makka fu la man di fekk nang ko fexe woor ndax am na ngëneel yu mag wakasa niki noona jami u sahbaana mboolem weeru baraxlu lépp ku ko mën a woor na ko moor am na ngëneel yu mag farahi nanga nga sàmm almaxasa ba muy lépp loo xam ne gis nga ca ngërëmal yàlla nga gaawantu def ko jafandu ca watafaxoo waram xam-xam ya dëppoo nañu bi fadli asura ci ngëneel yu mag ya nekk ca asura muy fukkeelu fan ci weeru tam xarit ala lezi ca kowe gëmu gën a kowe ngëneel ca bis ba nga xam ne yuddohaa ña nga koy woowe bitaasu a ca bisab juróom ñeenteel ba nee nañ waroom xam-xam yépp joxoon nañu ngëneel yu kowe yu nekk ca fukkeelu fan ba te ngëneel yooye ñoo gën a kowe ngëneel ya nekk ca juróom ñeenteelu fan ba mu ne li tax ñu joxoñ ko nag li kaw ni ngir li mu nekk moom fukkeelu fanu tam xarit ak saru di gën a barile minhu ca juróom-ñeenteeli fan ba ajara ab yool fasbitan sawma na saxoo di ko woor aljami i dahara ci mboolem sëg giir ndund njeem man nga ko wasbato woroom xam-xam ya saxal nañu ne asiyawu ay mbir dey tun xalu yooyu toxale nañ ko an seydil anaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi sanga bindeef yi muy joxoñ mbir yooyu yoo xam ne amoon na fii ca bis ba fal tastahmiloo na ngeen ko jéem a xam te jëfe ko bala moo romb yonent bi mu tudd nag da koy ñaanal doog jàll sàlla yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm wasalamata dolli musalam nga alayhi ca yonent ba assamadu yàlla may aji jubluwaay bay aajo walaali te eggale ko ca ñoñam wa sahbi ak i sahabaam wa man te eggale ko ci képp koo xam ne xat ursidoo ca ñëpp ña nga xam ne jub nañu amin nee nañ yi joxoñ léegi na nga xam ne dees na ko def fukkeelu fan ci tam xarit sawmun mooy woor am na ngëneel yu mag bu dee nga fukkeelu fanu weeru tam xarit salaatun ci ay naafila am na ngëneel yu mag boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit sillatun jokk ak bokk am na ngëneel yu mag boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit waxuslun ak sangu am na ngëneel yu màgg boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit sadaxatun saraxe am na ngëneel yu màgg boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit taxliimu sufrin dagg say we am na ngëneel yu màgg boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit kuuxlu tusngalu am na ngëneel yu màgg boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru kam tam xarit iyaadatul maridi seeti aji tawat am na ngëneel yu mag boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit zowru alimi siyaare borom xam-xam am na ngëneel yu mag boo ko defee ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit wa masu liyatimin saalimi raayi boppab jirim boo xam ne ab jullit la boo amee dara nga làmb dara may ko yee mbégte cab xolam ak banneex ba mu yëg ne baayam wala way juram nekkatu fi moo xam ndeyam moo xam baayam waaye ne yeneen jullit yu baax a ngi fi yoo xam ne dañ koy yee ci ab xolam mbégte ma ay way juram daal yee ci moom bab xolam sedd mu ne loolu ku ko mën a def ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit baax na am na ngëneel yu mag qiraatul ixlaasi jàng suratul ixlaas alfan junni yoon mu ne loolu ku ko mën a def ci weeru tam xarit am na ngëneel yu mag mu ne mboolem yooyu ñu la joxoon nag wasabat saxal nañu ne képp ko ko def ca tam xarit yaa ngay jëf ngëneel yu mag ya taw naa yaatal dundu ba joxe dundu bu neex ñu togg ko ca bisu tam xarit ca ca guddi ga reere ko mu ne loolu ngëneel yu mag nga ca képp ko ko mën a defal sak njaboot ba ñëpp lekk ba suur lu neex na ko def ay ngëneel yu mag nga ca mu ne yaatal googa nga yaatal jundu ba nag alal iyaali na jëm ca njaboot ak sa njaboot ak bopp mu ne loolu ku ko mën a def ci weeru tam xarit na ko def bay fukk ñaar yi daal wafat dikk na di ndigal lu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sëriñ Tuubaa nee na wal xoslu cangaay la fii ca bis ba xiila wax nañu ne yan fii day fekk saxamaa tawat képp ku ca sangu yàlla dina la fegal ay tawat walikti haalu tus nga luga fii ca bis ba yet fahu daf lay daqal alhëma ak ngumba taw si naa yaatal ga ñu yaatal fii ca bis ba alal hiyaali ca njaboot ga ñu yaatal dund ba ba ñépp lekk ba suur lu neex mu ne loole yasiduna daf nuy dolli risqa wërsëg bi isnil waal yi ci ndimalal kilifa ga di sunu boroom mu ne sumali asuura topp na nag bisab fukkeel boobu ci tam xarit amoon na asiya un ay mbir yoo xam ne tura gise soon na ko ca maxsoo satan biha mbir yoo xam ne dañoo baaxoo xewe ca fukkeelu fan ca weeru tam xarit rawa nettali na ko man ka nga xam ne dara am nap xam-xam mu ne fii ci bis booba taaba la yàlla baaloon rabbana kay sunu borom ala abi basarihi ca ka nga xam ne mooy sunu maam aadama kii bàyyib mbindeef yëpp ba ko yàlla bindee yóbbu ko ajjana ne ko bul laal garab gii mu laal ko ba ko yàlla tegee ay sanction muy tuub di jéggulu ba mu di wër ci àjjana ba mu gis ne bunt bu nekk bind nañ ca laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi muy tuub ba yàgg mu tuub ci barkeb rasulullahi mooma sunu borom yi jéggal ko loola ma nga xam xeewoon ca fukkeelu fan ca weeru tam xarit loolee nga xam ne sunu borom jéggal na ko sunu maam aadama awalu nabi ka jëkk ca yonente ya wastawati safinatul maxlooma ci bis boobu tamit la taxawoon gaal ga nga xam ne ñépp xam nañ ko te yàlla ba mu joxe ndigal yonent yàlla noox ne ko woowal nit ñi ñépp def ay way gëm yàlla ñuy jaamu yàlla mu woote junne at yu manqué tuuti kenn topp ko xanaa mbooloo mu néew rek waaye ñu ëpp ñépp dañoo bañ ba yàlla jox ko ndigal ne ko yettal gaal dugg ci yàgg ñi la gëm su ko defee ma indim tuufaan tukkal addina sunu boroom baaxe ko ba mu yett gaal ba dugg ci ak ña ko gëm sunu boroom feesal addina dell ak ndox ñépp faatu ba ñépp faatoo gaal gay tëmb ci biir géej gi ci biir ndox ma mun ne ci bisu tamxarit bi la gaal ga ñëw ba koste wa fii ci bis boobu nag istawati lakoste safinatul maxlooma gaal ga ñépp xam muy gaal ak noox ga alal joodi yi ca xeer wa mustaqima mbir moom mu taxaw fa nag nit ña dépp nit ña ñépp nag daldi di wàccaat loolee ma nga xewoon ca fukkeelu fan ca weeru tam xarit wa fii ci bis boobu tamit falqu bahrihi ci la sunu boroom baaxe woon li Muusa ñeel yonent yàlla Muusa mu xar géej ga ci fukkeelu fan ci weeru tam xarit la amee woon wa hakasa naka noona wulida fihi isa yonent yàlla isa mi ngi juddu ci bisu tam xarit ci fukkeelu fan ci bisu fukkeelu fan ci weeru tam xarit ci la yonent yàlla isa juddu ba fii ci bis boobu tamit ixraaxu li firxawna ci bis boobu la firxawna labe woon kasaaniki noona xurooja yunusa ci bis boobu tamit la yunus génne woon ca minel óoti ca jën wa ko woon noon ca la ko gëq xusan na nga jàpp ndax yonent yàlla yunus ab yonent la dafa àndoon ak mbooloo ñuy jaar ci bërëb boo xam ne am ndox la saa suñ fa jaaree jéggee dem ca wet ga ca des am benn bis mu dugg ci gaal gaal ga nit ña ëpp gaal gay bëgg a tëmb mu wàcc te yàlla joxu ko ndigal ba mu wàccee yàlla jox ndigal aw jën mu wan na ko te ko ñeenti weer ca biirab jën wa wet gune mu jaar fa jéglu sunu boroom mu të waaye ba muy jéglu ba yàgg mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimina man day maa ngi wax ne amul benn buur burut yàlla man yunus mii nag nekk naa ca way tooñ dama damaa tooñ sama boroom ca la ko yàlla jéggale jën wa gëqat ko loolee ma nga amee ca fukkeelu fan ca weeru tam xarit suma taaba topp nag ci boobu tamit la yàlla jéggaloon alayhi ci boobu la yàlla jéggaloon rabbul alim rabbana sunu borom borom boobu nga xam ne al alim mooy aji lewet ci boobu la jéggaloon kooke nga xam ne mooy yonent yàlla yunus ca mbir moomee mu defoon te déggoowu coon ak boroomam kasaani ku noona xuróoja ci bis boobu la yonent yàlla a génne woon alkarim kay aji tedd ca teen baka bokkam ya ko bañoon tabbaloon